jataay bii nag li ko waral mooy ndigal la loo xam ne mu ngi bàyyi ko sëriñam di faalum sëñ Modou Mbenda gannaaw ba nga xam ne jotoon na ndigal ci jëwriñam di Cheikh Modou Mountakha muy ndigal yoo xam ne day ndigal yu tegaloo ñun ñépp ñu teewlu ko bi ci jiitu woon di sàmm war may Touba ndigal loolu li nga xam ne sëriñ bi yeesaloon na ko si jëmmam ji ak njabootu Cheikh Rafal gi xamal ko ne ko dëkk bii kat naka jëkk kaaraangeeg yoon wi mooy maam Cheikh Ibrahima Fall kon nag fa nga xam ne foofu la ko sëñ Tuubaa bàyyi woon rek fa laa ko fas yéene delloo muy lépp luy kaaraangeeg dëkk bi teg naa ko ci loxol maam Cheikh Ibrahima Fall nga ànd ko ak njabootu Cheikh Fall gi ngeen wattul ko sëriñ Tuubaa ndigal loolu yi ba mu ba ko sëriñ bi jotee danoo daal di sant nu daal koy séddoo jottali ko mboolem ñi mu bokkal maam Cheikh Ibrahima Fall boobaak léegi nag ñu ànd si dox ngir bëgg li nga xam ne moom la si sëriñ bi jublu mu am ko nanga xam ne noonu la ko bëggee loolee mooy sababu diir bii nu toog te dégguñu fenn ni soobu nañ si liggéey bi dëgg-dëgg waaye nag tey jii nag ñu am ndigalul euh, ñu tànnal ñu bis ñu war see soobu muy dibeer jii ñu jëm to da tombeek bis bi nga xam ne si la ñuy jëmbat garab yi xam naa daañu si dellu si léegi si ndigal yi kon nu xam ne bis ni tey am nañ ndigal si sëriñ Amdi Fall moom sëriñ Modou Mbenda mu bàyyi ko Cheikh Modou Muntaxa ngir nu tàbbi nag si liggéey boobu yi nga xam ne mooy sàmm war may dëkkub sëñ Touba bii di Touba te nga xam ne ñun ñëpp lañ ne te amul luut moom. ni nu koy sàmmee nag waxtaane nañ ko ñun ñëpp nag ba xam ko li am solo daal mooy képp ku nuy déglu xam ne foo mën a bokke si yoon wi xam ne ndigal loolu li nu sëñ bi santoon tàbbi nañ si bis ñu tey incha allahu dimanche muy dibéer ji ñu jëm. danañ ko danañ ci sóobu tàmbali ko ñi nga xam ne noonu lañu ko sëriñ bi digale ñu fas yéene koo jëfe noonu ñuy sàkk ko si ñi nga xam ne ñoo jóg di dem ak ñi nga xam ne ñoom la ñuy fekki kenn ku ne si ñoom fexe ba li sëriñ bi bëgg na ko sëriñ bi bëgge mu amee ko ni ndax li nu gënal day moo doon du nu jóg mukk di fekk fenn lu nuy dindi buñ sañoon bala noo agsi kenn ku ne la nga jàppoon te bokk te bokk si loo war a bàyyi nga bàyyi ko bala nu ak si yow ndax ñun ñëpp jaayanteeg sëñ tubaa rek moo nu fi indi te moo nu fi bàyyi kenn ku ne la nga diggeeg sëñ tubaa mooy loo ma digal ma def ko loo ma tere ma bàyyi ko te sëñ tubaa lim nuy diggal njariñ yi kese la te njariñ yi ñun rekk a ko moom kon nuy sàkku si mbooleem koo xam ne yaa ngi dëkk si dëkk bii di góor ak si jigéen waaye rawatina jigéen ñi nag ñuy sàkku si ñoom lii nga xam ne mooy bëggu Cheikh Modou Mountakha gi mooy nu méngoo ak ay taalibe yoo xam ne taalibe yi sëñ Tuubaa lañ képp ku nu gis doo am sikki sàkk xam ne ñii njabatu sëñ Tuubaa la nu fexe ba mel noo ne mooy nu wan ginnaaw lépp loo xam ne bokkut ak war may Tuubaa lépp loo xam ne day wuññi war ma ji lépp loo xam ne da koy day xajamal lépp loo xam ne day ñaawal loolee nu fa yéene ko wan ginnaaw te doyloo sëñ Tuubaa mi nga xam ne moo tax ñu bàyyi ko ndax nit kat boo joxee sa bopp ka nga jox sa bopp dalaa doy te danga nga ko war a doyloo kon nu doyloo sëñ Tuubaa si jox gi nu ko jox suñu bopp fas yéene li munu nu digal nu def ko loola la ñuy sàkku si mbooleem ñi nga xam ne ñoom la ñu jëm jëm si ñoom muy góor ñi ak jigéen ñi kenn ku ne li nu lim ci xët wii téere bii ne sëriñ bi dafa bëgg nu won ginnaaw loolu ku si nekkoon nga fas yéene ko won ginnaaw ku si nekkutoon nga fas yéene bañ saa jaar ñu ngi sàkku si taalibe yëpp nga xam ne seen yaakaar génnul sëñ Touba loolu yi ñu taxaw si ba bu nu agsee fi ñoom sax bu nu fa fekk lu nuy lijjanti loola moom la ñuy sàpp si ñoom dinañ ko yaatal léegi su ko defee ñëpp xam ko yaakaar naa bokkoon na si li nga xam ne mooy xeeti politique sëriñ bi wax ne bëgguñu ñu def ko Touba ñu bàyyi ko lu jëm si wàllu yëngatu politique mooy ay ndaje politique ay mitin ay ay ay ay réunion yooyu yëpp ba si bureau de vote yi nga xam ne moom moo sàkkuloon boppam nu nu nu nu nu nu dindi ko bañ ko fee def loolee ñun ñëpp ñu fexe ba sàmmanteeg loolu ba bu nu ko gisati si Touba. bi si dolliku di ñaareel ba mooy waggar gi nga xam ne war nañ koo waggar baatub sëñ tubaab bi ak njabootug sëñ tubaa gi ak baatub mboolem koo xamante ni kii këru diine nga yor te nga xam ne ki koy def mu ngi si biir dëkk bii di Touba mooy ñu ñu jox ab cër bu mat sëkk njabatu sëñ tubaa gi waaye jox cër bu mat sëkk gépp kër goo xam ne këru diine la te nekk ci réew mi wala si bitim réew képp koo xam ne kii daal yaa ngi tuddoo yàlla ak yonte bi alayhi salaatu wasalaam ñu ngi lay sëñ baa ngi sàkku bu kàddu gu ñaaw walla jëf ju ñaaw wala lenn lu ñaaw bàyyi ci ku dëkk tuubaa di jëm sa moom sëriñ baa ngi koy sàkku si murit yépp ñu taxaw si ba dara lu ñaaw bu mu bàyyikoo ci si ab murit jëm si njabootu sëñ tubaa gi waxatuma laa keneen koo xam ne danga bokk si këri diine yi nga xam ne ñoo nekk si réew mi beneen bi mi ngi doon lépp loo xam ne bépp forme jëfandikoo bu ñuy jëfandikoo bërëb yi si Touba si anam yoo xam ne du anam ñu tege si aw yoon mu ngi mel ne loolu day tàbbi si liggéey bii nu sëriñ bi doon liggéeyloo rek bu yàggut muy si gaar ba ak si marché bi ak si corniche bi muy ñi nga xam ne dañuy jëfandikoo yoon wi ak bërëb yi nga xam ne ñépp ko séq ak tëli bi ak marché yi si anam yoo xam ne dëppawul ak la nga xam ne mooy yoon mooy nga ñëw ba si aw yoon nga def sa cantine wala nga teg wala nga def ko si mbedd mi wala nga jël sa atelier wala sa garage def ko ci mbedd mi wala nga tabax sa kër ba mu génn ba sa biti nu mu la soobee lépp loo xam ni moomoo ko daal bokkul ci sa moomeel ci liñ la jox loolee nga bàyyi ko ak ki moom muy sëriñ bi su ko defee lam sa bëgg moom moo ko xam mu def ko sax loola sëriñ baa ngi bëgg bu sa kenn tàbbi ndax képp ku ko def incha allahu danañ ñëw euh, dindi loolee beneen bi mooy gépp jëfandikoo gu ñuy jëfandikoo lu xeetoog am tëgg wala lu xeetoog ay yëngutu yu jëm si li ñuy wax misik ak yu mel noonu ci xew yi ak si kër yi yëngutu yooyu nga xam ne day wowal ab xol yàlla bëgg ko yonti bëgg ko sëñ Tuubaa bëgg ko sëriñ bi nee na nu moytu ko sant na nag njabootu Seera Faal gi fépp fuñ ko gis wala fépp fuñ ko dégg nu dem fexe ba loolee jóg fa beneen bi ci dolliku mooy jaay ak jëfandikoo lépp luy xeetu sàngara ak lépp luy xeetu am tux moo xam lu ñuy tux la wala lu ñuy naan te muy soppi euh, xelum doomu aadama sëriñ baa ngi sàkku képp ku koy def nga bàyyi ko képp ku koy jaay nga bàyyi ko te jaay ñi koy jaay sax ñoo jiitu ndax bu nu ko jaayut duñ gis ku ko jënd kon nag loolu sëriñ baa ngi sàkku képp ku ko doon def si dëkk bi nga bàyyi ko loolu bokk na si li nga xam ne Eh, ndigal yi sëriñ bi di wattuloo njabatug maam Cheikh Ibrahima Fall gi ñu war koo taxawu beneen bi si dolliku mooy lépp lu jëm si wàllu am po po moo xam ne pom pom pom pom nappantu la lu mel ne ay xeeti kart ay xeeti eh, mi wala ay xeeti eh, loterie wala ay xeeti damier wala ay xeeti mariage xeet yooyu nga xam ne yooyu nga xam ne day wowal ab xol di soril nit boromam yooyu sëriñ baa ngi sàkku nu moytu ko waaye sant na njabootu Seera Faal gi ñu dimbalante ak murit yi ngir nu mën ko woon ginnaaw ba faw beneen bi si topp mooy lépp lu jëm si col gu yiwadi si góor ñi ak si jigéen ñi waaye nag rawatina si jigéen ñi ndax si ñoom la ëpp lañu koy gis mooy col yoo xam ne say cër day nekk si biti koo dajeel mu teg bëtam te loola di lu xaraam di loo xam ne sëriñ bi yàgg na koo tere si dëkk bi yàgg naa sàkku nu won ko ginnaaw te ñun ñëpp ay taalibe lañ koo si ne doob murit nga jëflante ak moom te li nga xam ne mooy tax nu doon ab murit mooy nangu ndigal li te jëfe ko loolee sëriñ bi sonn na lool si digle ko ak di tere kon nag sëriñ bi bëgg njabootu Cheikh Rafaal gi taxaw temm si ndigal lool yi fexe ba nu sàmmanteeg moom mooy lépp luy col gu yiwati sol lu gàtt wala sol lu xat wala sol lu xar nga xam ne boo rombee ñuy gis saw yaram wala bàyyi sa boppum neen bu dee da nga see def ay lit wala ay mees yu ñu yokk loolee sëriñ bi wax na nu won ko ginnaaw ba képp ku ko def incha allah boo dajeeg Baay Faal yi danañ ko saafara bu dee si góor ñi col gi yiwa di weesuwul ñi nga xam ne dañuy sol ay tubay di ko wàcce ba si suuf nga xam ne tubay jën jiital day nekk sa biti wala nu sol ay xeeti tubay yu gàtt yoo xam ne dañ koy doxantoo si biir dëkk bi yenn saa nga dem ba si peggu jumaa ji gis ku sol tubay ju gàtt di dox di wër jumaa ji wala mu sol survêtement boo xam ne ab dënnam lépp ngi si biti loolee lépp bokkul ak war ma sëriñ bi nee na ñi koy def ñu bay ko te sant na njabootu Cheikh Rafal gi ñu taxaw ngir soññeente ak ñoom ngir ñu won loolu ginnaaw bi si dolliku mooy bépp xeetu yokk karaw wax nañ ko muy li dem si mees ak si ay gerefaas loolu nag sëñ baa ngi sàkku ñi koy jaay si dëkk bi jëkk ñu bàyyi ko ban koo jëndati ngir jaay ndax bu nu ko jaayut ñi ko bëgg duñ ko am fu nu ko jënde wala feneen fu nu ko jënde buñ ko andee si dëkk bi danañ xam ne ñoom ñii lii faggoowuñ ko si dëkk bi te loolu lu yomb saafara la mooy suñu bokk jigéen ñi lu jëm si mèche li jëm si ay greffage lu yokk karaw te bokkul ak li sëriñ bii digle loola nañ ko fas yéene woon ginnaaw ndax képp ku ko defut incha allah boo dajeeg nun wala bu nu dajeeg yow te daje bi mënta ñàkk ndax fas nañ yéene dootuñu jóg si terrain bi bu nu dajeeg yow da ko bàyyi wala boobu da nga si daj loo xam ne loolee jaru ko bi si dolliku mooy lépp luy wàllu ay xërëm ñuy jëfandikoo ay xërëm si dëkk bi dañ leen saytu xool leen ba xam fu ñu nekk ndax sëriñ bi yàgg na see def ay soññee bëgg loolu nu won ko ginnaaw ndax méngoowul ak lu yàlla gërëm méngoowul ak lu yonent bi gërëm te sëriñ bi moom lislaam rek la woote kon nag képp kuy ñaan na nga ñaan si yàlla ak yonent bi waaye bul ñaan si lu jëm si ay ay xërëm wala ak ak njibar loolo sëriñ bi dafa wax ni nan ko woon ginnaaw ñi nga xam ne danoo yor ay moto di si togg ay jigéen ay ay jigéen moo xam ay xale yu jigéen moo xam ay mag ñu jigéen góor guy togg jigéen moom sëriñ bi nee na loola sopp ko bëgg ko si dëkkam bii nan ko nan ko woon ginnaaw képp ku nu dajeel nga di ko def la nga yor waruwaay wa nga yor des na ko nangu te su boobaa dootoo si jot incha allahu leneen li si dolliku mooy bépp njàngale moo xam ne day jàngale ku jëm si diine jàngale diine jàngale islaam si ay téere wala ay ay ay ay mbir yoo xam ne dafa wuute ak njàngalem sëñ tubaa ndax sëñ tubaa moom mooy islaam lislaam rekk la woote li nga xam ne moom la indi si am njàngale si dëkkam bii si njabootam gii dara génn si lislaam kon képp koo xam ne dangaa sàkk weneen yoon wala dangaa sàkk beneen wet goo xam ne danga faa bëgg jàngale gu wuute wala mu waroo ak Serigne Touba nii nga xam ne noonu la peegee lii ba di ko ba jàngale ko sol ko si njabootam gii muy law ba nëgëni képp ku fi indi leneen loo xam ne danga nga see jublu na wala fab bi xale yi ba dugal leen si yeneen forme mi gëm loolee Serigne bi nee na fépp fu ñu ko xam na fa njabootu Cheikh Fall gi dem su ko defee ñu dindi ko fa ba mu set wicc loola bokk na si li nga xam ne moom la sëriñ bi wax. li nga xam ne mooy salle sport yi si dëkk bi gis nañ ko ay ñoo xam ne dañoo tabaxi tabax. def fa ay ay xeeti euh, ñuy tàggat yaram léegi-léegi nga dafa fekk ay jigéen ñuy sol ay yére yu xat nekk góor ñi di di dina dañuy tàggat seen yaram loolu sëriñ bi nee na jigéen ñooñi ay na leen loolu bu nu ko defati bu nu demati fenn fu nuy defee bërëbu tàggatu yaram si biir dëkk bi loolu sëriñ bi tere na ko si dëkk bi ku génn defee ju ko fenn nag yaa xam waaye biir dëkk bi moom sëriñ bi sant na njabootu Seera Fall gi bu nu ko fi defati bu nu ko seetaanati li si dolli football football it gone yi bëgg nañ ko lool te sëriñ bi wax na ba tey yaakaar naa amul benn tere bu ñu mës a tere te boolewuñ ci football te ñi koy def ay taalibe lañ yooyu ne sëñ Tuubaa rek la yaakaar kon nag bu fekkee lan wax dëgg la li sëñ bi bëgg nañ ko def football yomb naa bàyyi su ko defee nu bàyyi ko si mag ñi ak si ndaw ñi fas yéene nañ njabootu Seera Faal gi fépp fu nu fekk kuy football walla nga di ko dundal ci biir dëkk bii. daanu jëflanteeg yow ba nga xam ne li sëriñ bi bëgg faw mu am lii nga xam ne moom la ñu lim nag di ay bunt yoo xam ne sëriñ bee nu ko tànnal wax nu ko ne nañ si soññente nañ ci labirante sëriñ bi wax ne noonu mu ko waxee nañ ci labirante ak bokk taalib yëpp ñi nga xam ne ñoom lañ bokkal dëkk bi nun ñu jóg jëm sa ñoom ñu fexe ba ñoom ñu xam ko ñun ñii nga xam ne si ñoon jóg di demit ñu ne ñu xam ko bu wér ba xam ni loola si nun ñii la jëkkee waaye day jàll nag ba si ñoom ñëpp nag gannaaw ba nu sàkkoo nag bala noo agsi fi ñoom ñoom nañ sàmmanteeg loola te tënku sa ñu ne ñu ngi wax ni képp koo xamante ni kii ah lii sëriñ bi wax da nga see wane ak fetteerlu wala nga lànk ne doo ko def dinañ jëflanteeg yow nag jëflante boo xamante ni bii su boobaa di nga xam ne la nga nekk waroo saa nekk ndax loola mooy ndigal li lu sëriñ bi jox ñu fas yéene ñuy ñaan képp ku si nekk nga bàyyi ko bala noo àgg ak yow foofa ndax li sëriñ bi bëgg faw mu am te nun njabootu Cheikh Rafal fas nañu yéene amal loolee sëriñ bi bëgg mooy li sëñ bëgg danañ ko def képp koo xam ne kii nag da taxaw fétal lu ne lànk ne doo ko def xamal ni danga nga dajeeg nun te daje ba ngay dajeek nun dana doon daje bu tàng jip su boobaa nag da nga xam ni loole jaru ko kon nag nangoo gën walis ñuy wañ sab loxo di la teg si aw yoon ñu fas yéene def ko rek ci ni nga xam ne noonu la ko sëriñ bu bëgg tey ñaan yàlla lépp jub yàlla nañu ko sëriñ bi nangul ndigal li nga xam ne sëñ Muntaxa doyloon na sëñ Amdi Fall jox ko ba ak njabootu Cheikh Fall bi ñu ñaan ci doole Cheikh Ibra yàlla na sama borom dimbali ba nu ànd ko nun ñëpp defe ko ni ko sëriñ bi bëggee si ak yar ak teggin ak dal ni nga xam ne noonu lañ nu xamee nun Baye Fall muy organisation ak méthode discipline loolu lañ xam si nun loola nag lañuy woo ñëpp ñu maase tënku si ñuy ñaan bu kenn dox doxeen wuñ lay soññee kenn dox doxe bu ñu lay rappeler à l'ordre ñu ngi koy sàkku si mbooloo mi yëpp ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaanal sëriñ Amdi Fall mu sëñ Modou Benn yàlla sama borom yàggal ko di di ñaanal murit yàlla sama borom yàggal leen leen ba luy bëgg sëriñ bi yàlla nañ ko xam nañ ko bëggee di ñaanal njabootu sëñ Tuubaa gépp ñoom euh, ñëpp rek ni seen bëgg di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa Amin.